الحمد لله العزيز الحميد حمدا يليق بجلال وجهه وكمال وصفه وعظيم سلطانه نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حامل له معترف بفضله ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من اشتق من الحمد اسمه فكان أحمد الناس لربه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الشاكرين الحامدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم وحمده فاتقوا الله لعلكم تشكرون أيها المؤمنون كلمة افتتح الله تعالى بها أول سور كتابه وأوردها في أكثر من أربعين آية من آياته وسبحت له بها جميع مخلوقاته innaha kalimatul hamd mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala moom mi yeyoo cant di ko sant cant gu tolloog dayoom moom mi nga xamante ni mooy aji mat gi ñu ngi koy sant moom subhanahu wa taala di ko dimbalikoo di seede ni amul kenn ku war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala seedeg cantaakuun bi nangu gëm ay xéewal yàlla subhanahu wa taala def ci ñun di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la moom mi yàlla duppee ci turam ki ñu sant muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ki ko sant mooy boroomam subhanahu wa taala fa dul arshi mahmudun wa hada muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam di rafetal ba ba keroog borom bi subhanahu wa taala di doon suufam si ñuy dénk suñu bopp mbokk yi di leen dénk ragal yàlla suñu borom subhanahu wa taala ak di ko sant yàlla mu ni fattaqu llaha laallakum tashkuruun sant yàlla dafa bokk ci gëm yàlla mbokk yi baat bii ñuy bëgg a wax mooy baat bi nga xamante ni borom bi subhanahu wa taala moom la tàmbalee mbooloo mi saari alquraan yi ba mu des baraatun borom bi subhanahu wa taala tudd ko ci alquraanul karim ci ay bërëb yu fasantikoo baat bi nga xamante ni lépp lu yàlla sàkk diggante asamaan ak suuf ak la ca biir ak lépp baat boobu la ñuy jëfandikoo baat boobu mbokk yi mooy baatu alhamdulillah mooy sant yàlla muy baat bi nga xamee ni la muy tekki mooy saxal gi ñuy saxal ni yàlla subhanahu wa taala mooy aji mat gi mooy ki tëlewul dara huwa almawsuufu bi kulli kamalin wa baidin an kulli naqsin muy baat bi nga xamee ni it moom la ñuy tagg yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci bépp jamono baat boo xamee ni it jàmm bi bu koy tudd muy alhamdulillah da ci war a yëg ci biir xolam bëgg gi mu bëgg yàlla ak màggaayu yàlla subhanahu wa taala muy baat boo xamante ni mbokk yi jullit bi dafa war a sax ci làmmiñam mu koy tudd fi sarraa wa darraa ci jamono ñoo xamante ni yaa ngi ci mbégte wala jamono ji nga xamante ni yaa ngi ci safaan wa indal balaa'i ba bi ci musiba bu la dalee baat boobu da nga ko war a tudd muy alhamdulillah delloo cër bi yàlla yàlla suñu boroom subhanahu wa taala mu ngi wax ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni bu jaam bi waxee laa ilaha illa allah lahu lmulk wa lahu lhamd muy baat boo xamee ni laa day dàq laa day dàq mooy amul ilaha ku nu war a jaam illa kudul kooku day saxal kudul kan allah subhanahu wa taala lahul mulk mooy borom nguur yàlla mooy jël ci nguuram gi xool ku ko neex ci jaamam yi mu jox la ci du xool fa nga bokk du xool ca la nga doon du xool lenn mooy jël nguuram gi jox ca ko neex tubtil mulka man tasha mooy jël moo jël suñu président son excellence Bassirou Diomaye Faye jëlee ko prison dugal ko palais wa huwa ala kulli shay'in qadir mooy jël ci nguuram gi nag jox ko ku ko soob waaye saa su ko neexee mu teggi ko jox ko keneen mooy borom nguur mu ni nga teg ci ni walawul hamd te cant yi ñeelul kenn ku dul yàlla baat bii de bu ko koo wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fastashir fastashir mooy na nga yëg ni yàlla suñu borom ba ngay wax loolu ma ngi lay delloo kàddu yi mu naan sadaqa abdi sama jaam bi dëggal na ni laa ilaha illa ana amul kenn kun war a jaamu ku dul man yàlla day puuk réew ci boo waxee loolu mu ni li yal mulk sama jaam bi nee na nguur ñeelul kenn ku dul man waliy alhamd sant it ñeelul kenn ku dul man saay boo waxee laa ilaha illa allah lahu lmulk wa lahu lhamd xamal ni borom bi subhanahu wa taala mu ngi lay delloo yooyu kàddu mbokk yi yàlla mooma de ñu ngi koy sant ci sàkk gi ñu sàkk def ñu ñuy doomu aadama sàkkuñu ci jamono ji nga xamante ni ñooy xayra ummatin uxrijat linnaas xeet bu mës a wàcc ci kaw suuf xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ci la gën ñu koy sant ci ñu bokk ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wasallam pare dooni jullit ñu ngi koy sant moom yàlla subhanahu wa taala ci lépp lum ñu defal ci ay xéewal ci wërsëg yàlla mooy kiy séddale wërsëg dénk ko jaam dénk ko doomu aadama moom moo koy séddaleel ku nekk bi qadari ma yasha ci lu ko neex ñu koy sant moom subhanahu wa taala ci baatu alhamdulillah ci ni mooy kiy jubalaate yàlla mooy jël ku ko soob nga ñaan ko alhidaaya jub mu nag teg la ci yoonu jub yàlla yàlla teg ci yoonu jub saxal ñu ci faat ñu ci tegu ko ci loxo yi doomu aadama moo waxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko innaka la tahdi man ahbabta bu fekkoonte ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku mu bëgg rek da ngay jub kon bàyyam tax du faatu ci kéefar waaye yàlla ne ko inna allah yahdi man yasha man yàlla mooy jubal ku ma neex ñu ngi koy sant ci jubal gi ñu jubal di ñaan mu sax ñu ci wa allamtana ñu ngi koy sant moom subhanahu wa taala ci xamal gim ñu xamal bari na ñoo xamante ni la ñuy def xamuñu ci dara ña ngay tëñëx tëñëxi ci la ñuy sax jaamoo seen boroom waaye ñun ñu am tawfiiqu ñu ñuy xamal naka la ñuy jaamoo suñu boroom ñu ciy teg suñuy tànk ngir ëllëg ñu taseeg ngërëmu borom bi subhanahu wa taala ñu koy santaat moom ci alhamdulillahi rabbil alamin ci wér gim ñu defal mbokk yi ana ñaata doomu aadama ñoo yor alal gu ni gàññ te lu ñuy def dañ leen koy defal ndax wéradi waaye nekkul rek ñoom la ana ñan ñoo ñi faqiir ñàkk ba amuñu sax lu ñu ndékkee wala añ wala reer yàlla dolli leen def leen ñu nekk ñu wéradi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaari xéewal yi xéewal la yoo xam ne ñu bëri dañ koy sàggane mu ni as-sihha wal faraax wér ak temps nee na boo wéree di nga tal lu ne nga tal jaamu yàlla di nga tal lu ne waaye boo wéree dee sa bopp rek ngay tal temps nag nee na doomu aadama bi du xam njëriñam lu dul daa dem ba sukkuraat dikkal ko ñu koy traversé lépp fi dem fa mu jaar xelam di dem ci ni ndax man moom nar naa texe kon ay yàlla dama mu delluwaatoon tuuti rek xëccat samay fan tuuti ma saraxe dogitu tàndarma ngir mu dolleeku ci samay yiw yonent saa salaam nee na ñaar yi jaam yi dañ koy sàggane te lu am solo ci doomu aadama ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala ci wér gim ñu defaral ci alhamdulillah di ko sant ci dal gim ñu defal di ko sant ci nguur yi ñu tànnal muy nguur yoo xamante ni yaakaaru nañ ñi tegu nañ ci yoonug jub yàlla na yàlla saxal leen ci yoonug jub di ko santaat moom subhanahu wa taala ci bépp xéewal bu mu ñu defaral rawatina moom subhanahu wa taala ci yërmandeem ngay defee ay njombite yoo xamee ni bu xaw yi woon sa sutura rek dootoo fa jar dara yàlla ne na ma suturaal la ngir ëllëg nga dellu si waat sa xel dellu si waat nga tuub dellu si man ñu ngi sant yàlla ci sutura soosu mu ñuy mu ñuy muur di ko santaat moom subhanahu wa taala ci alhamdulillah ci jamono ñu nekkee ci xat-xat moom kese mooy ki la ci mën a génne ñun nag ñooy nekk ci xat-xat nekk ci njaaxle naan yaa allah ndax boobu yaakaaroo kenn ku dul moom mu génnee la ca delloo waat la ca la nga nekkoon fa ida hum yushrikuun ñu delluwaat di bokkaale seen borom subhanahu wa taala mbokk yi nañu sant yàlla comme ni ko malaaka yi di sante yàlla mu ni wa tara almalaikata xaafiina min xawli alarsh yusabbixuuna bi xamdi rabbi ñuy santaat yàlla subhanahu wa taala ci alhamdulillah comme ni ko yonent yi alayhimu salaam daan sante ci ginnaaw bi leen yàlla tànnee def leen ay maasuum nekk ñu nekk ñu yàlla semmal du ñu moy seen boroom tënku ci li yàlla bëgg ngir nit ñi di roy ci ñoom waaye ànd ak loolu lépp ñuy delluwaat di santaat seen borom subhanahu wa taala rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxira xasana wa qina adaba annar aqul ma samiatum wastaxfiru allaha li wa lakum wa li sairi almuslimin min kulli zanbin fastaxfiruhu innahu huwa algafuru rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñuy santaat yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci baat bii nga xamante ni moom moo ko tànn muy kalimatul hamd nañ may sante ci baat bi Muusa alayhi salaam dafa waxoon borom bi subhanahu wa taala ni ko yow Muusa ni ko yow yàlla subhanahu wa taala Adama alayhi salaam mi nga sàkk ci sa loxo yi ndéem loxo yell na ci yow nga wal ci moom ruux summa nufixa fiihi min ruuxi ngay wax malaaka yépp ni nañ ko sujjootal noppi woo ci teraanga yi yow yàlla nga dugal ko biir aljanna seytaane juumloo ko biir aljanna mu jéggalu la nga jéggal ko ànd ak lii lépp yow yàlla ana aadama nu mu la war a mën a sante borom bi subhaanahu wa taala ni Muusa aadama de dina doy sëkk ci moom rek mu wax alhamdulillahi rabbil alamin soxlawul leneen lu ne nag ñu ngi koy def di ko tuddee sant yàlla waaye baat bi ndaw ak mag ku tëleeg ku am ku ñàkk ñépp la ko yàlla jàppandal ci yow ngir nga koy sante alhamdulillah yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na doomu aadama bi bu fekkente ne yàlla dafa jël tur tànkam maanaam mu faat ko yàlla dafay wax malaaka yi te lam leen di laaj moo leen ko gën a xam ndax moo leen ko sant mu ni leen sama jaam bi jël ngeen ci moom meññeentu xolam muy doom ana naka nag ngeen bàyyee ay waajuram ñu ni ko bàyyi nañ ay waajuram de ñuy ñuy sant yàlla di wax alhamdulillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sant nañ yàlla ndax moo ñu ko joxoon te bam ñu koy jox xañ na ko keneen wala ñeneen ñu santoon ko ci bu ko jëlaatee nag mooy ki ko sañ mooy faalul lima yurid mooy doon mooy kiy def lu ko neex te du demander benn explication ñu ne ko nag bàyyi nañ leen dañuy sant yàlla mu ni ubbil leen leen sama jaam bi biir aljanna ngeen dugal ko ca kër ya ca biir aljanna te kër googu na ngeen ko tuddee kërug cant gi subhanallah yàlla moo mën affaire mbokk yi te affaire bi ci lu yomb mu defaral la ko ci kalimatul hamdulillah rabbana dalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin اللهم اهدنا إلى صراطك الصوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله